yaa ma sa bopp ndax ca biir mbir ma laa bokkoon waaye yoon wii mujj dafa am lu mu firndeel lu bëri li ngay ñuy wax ni nekk leen ci dëgg kanam rek la mbir mi jëm ndax dafa gàcceel ña doon fexe ak ña pexe ci 2013 leen gàcceel ñoom ñëpp yoon bii ndax maanaam dafa ci zaahir dafa feeñal la ñu doon wax ci baatin la ñu doon wax ni mbir mi mooy dëgg li ngeen nekk dëgg rek la sax leen ci ak lu mën di xew gars di fexe ngir mbir mi daan di fexe fexe yu nañu teg waaye mbir France bi weesu dafa firndeel ni dëgg nga nga ñu teg ci nga ne ci nga ñu teg ci nga ñu woo li ñuy ñaan nag mooy suñ borom nga ñaanal ñu yow yaa xam nooy def ak suñu borom ba mu sàmmal ñu boppam fa nga ñuy joxoñ ñu ne fa ak lu mënti xew fa nga teg ñu ne fa ndax pexe yi bëri na Mbàkke façon fexe bu ne teg nañ ko waaye man de man ci sama bopp man xam naa ne ma yow Mbàkke yaa ma téyel sa bopp man nag damaa matadi matadi naa matadi gune xam naa sama bopp waaye man de leer na ma ni Mbàkke man damaa bokk ci ñi nga téyel sa bopp ndax mbir mi amin amin Mbàkke mbir mi maanaam yëngu woon na yëngu woon na lool ba xel yu bëri jaxasoo ah. samay xel ci la bokkoon dëgg la waaye France gii weesu France 2024 dafa firnde la xewoon France 2013 la amoon 2013 ñëpp jaxasoo 2024 da ko leeral daa leeral ni mooy dëgg moo tax Mbàkke boo ñu nee lii ñëw ci kanam mooy dëgg mm. mooy gàcceel lii tey mm. duñ ko weddi mbukk buñ ko weddee itam dañoo mata di rek waaye billaay lii di dox ni muy doxee nii day firndeel ni dëgg lañ na de yal na ñu suñ borom saxal yal na la suñ borom dolle kàttan ci barke weer bu màgg bii ñu nekk barke bis yu màgg yi ñu nekk yal na suñ borom dolle kàttan ba nga mottali sa yéene ci diine ak ci yoon bi lépp nag ñu ànd kook yow ak suñu njaboot ak képp ku bokk ci ñun yal na ko suñ borom def ci barke fan yu màgg yi ñu nekk amin mbàkke amin yaa amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin amiin alhamdulilah. li nu nekk nii. alhamdulilah ci dara. dama koy wax waxtu wu ne. boo gisee may la yow laa njëkk xalaat. alhamdulilah da nga maa woo. Mhm. woowati ma te saa soo ma woowee ma am lu ma la wax. nga woowaat ma ma am lu ma la wax fii barab ba ma taxawoon ba may woo 2013 mm. du barab bu may fàtte mukk ba fii ñu toog di ko waxtaan waaye am na ci loolu du man mii toog man ku doye di laa ku xeebu laa waaye li may wax ne yàlla moo am ngëneelam moo am jagleelam mo am yermandem te ku foko ko mu def ko fa ah. te dafa bok ci ay nak hmm. mu def ko fi alhamdulillah ilal abad. alhamdulillah khalidina fiha ma damati samawati wal ard ah. ci mbaaxam ak yermandem ak tawfeexam te lu ñu ren hmm. bu déwéne cant gu ko gatchal mom lay feñal du man de waaw wuñ ko dañ ko gis gisati ko mbak man ma gëna doye di ci jaamu yalla yi ab dongo sax motu waaye nag moom moo ne moo am ngëneelam hmm. moom moo ne moo am jagleelam hmm. moom moo ne moo am yërmandeem hmm. te ku ko soob mu def ko fa alhamdulilah toobareem joojee nag moo nu ca tàbbal ci baaxam